bisimilahi rahmanirahim aousubillahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmanirahim wan siraara xarx war saay wa jinn wa seytaan wa bala ma bala i maha amradi wa biri daatan xaaduri ahradi mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar leen siyaare fii ci njaareem fii ci Médine fii ci jàkkee maam si Ibrahima ji nga xam ne moo ko rëddaloon boppam waaye ñu ñëw fi fekk fi suñu kilifa ki nga xam ne moo yor barab bi muy bàyyi waaj waaye si siyaar baax xalifaam di kilifaam di sëriñ Jili moom sëriñ Modou Ablaye Fall Ndar ko ñaanal baax suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko waaye di jiital ci nuyoo beeg bi nag sëriñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi xalifa sëriñ Touba ak liggéeyaakonam bu sëriñ Cheikh Jëmb Fall di ñaan suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko waaye di siyaar baax sëriñ Ndaw mi nga xam ne moom lañ àndal fii tamit ci liggéey bi ak euh, Serigne Gora mi nga xam ne moo yor wàllum caméraman bi kon ñuy ziar baax tamit mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew seen émission Zikroullah nag gëj ngeen ko gis waaye boobu ba léegi ñu nekk ci rek di leen di leen di wutal loo xam ne bu ñu ko tegee rek incha allahu rabi yéen ñëpp di ngeen ci kontaan tey nag ñu ñëw fii ànd ak suñu baay euh, ngeen ràññee baax a baax ci keppaaruk Serigne Cheikh Fall Baye Góor keppaaruk Serigne Cheikh Ndigal Fall du Baye Mesere Thiam nga xamante ni moom ñëpp miin nañ ko bu baax a baax ci yëngatoom ci yoon wi ci mboolem euh, xew ci yoonu kër maam Cheikh Ibrahima Fall boo fa demee di nga ko ci gis muy yëkkati turu yàlla woowu nga xamante ni moom moom lañ ko jox ci moom lañ ko jox ngir mu ci liggéeyal maam Serigne Fall kon àndal tey fii ci Njaareem fekk ci fii ci pàkkam nag fas yéenee nuyoo moom waxtaan ak moom ci turu yàlla mag ñi nga xamante ni fekkoon am na ñoo xam ne fekk na leen fii ku ci mel ne Baye Jibi Diouf uh, ak mbooleem mag ñi nga xamante ni daan nañ tudd yàlla waaye mu ciy def tamit liggéey bu am solo ci réew mi ak ci biti réew mi kon Baye Mesele la ñuy àndal ñun nuyu ko baax siyaar ko wax mu nuyoo mbokk yi seetaan ko defee ñu doogoo door waxtaan wi incha allah asalaamaaleykum ansi billahi mina seytaan rajim la wala wala xawta illa billah alasim nu fas yéene barkeelu waaye bala ñu barkeelu nu siyaare sëñ Muntaxa waaye siyaare sëñ Cheikh jëm mi fi nekkal Cheikh Ibra Fall di borom digal mi nga xam ni moo nekkal suñ Cheikh Fall doonu xalifaam kàddu gi ñu bëgg a wax nag maanaam mën nañ noo ko tàmbalee ci sëñ Cheikh Fall bàyyi goo ci jamonoom mu ci ni ma ko jàngate nag maanaam suñ Cheikh Fall moo jëmbat tur yàlla wii ci noonu waaye suuxat bi ñu ko suuxat nag ba ñun ñëpp nu di ci jariñu tey ci borom digal Fall moo ko moo ko suuxat ba mu meññ bay tàbbi bay root ba ñëpp mën cee jariñu tey waaye noo ngi siyaare mboolem buntu kër yi Cheikh Ibra Fall yii tàmbali kër sëñ Ablaye Fall ba ci kër sëñ Amdi Asan ba ci buntu kër yëpp buntu kër Cheikh Ibra Fall yëpp noo ngi leen di siyaare di siyaare tamit mbooleem Cheikh Cheikh Ibra Fall yëpp ak mbooleem ahlu murid murid rawatina Baye Fall yi noo ngi sàkku seenu ñaan fas yéene nag jooxal lii nga xam ni moom lañ ñu fekk see fii ah, nu doxal ci sunu yéene ak sunu kemtilaal kattan ci doole sëñ sa Fall borom digal. jërëjëf Baye Missirah ci liggéey bu ci euh, nuyoo bu jotale boobu macha allah euh, Baye Missirah Thiam lañ dalal ci émission Zikroullah xam naa dañ koy bàyyi rek mu yëkkatil ñu tur yàlla wi ndax dañuy wax naan euh, saxaar bu jubee gaar faaw mu ko ne Baye Missirah kon ñu jox la rek nga yëkkatil ñu tur yàlla wi tuuti. فلا لا يفعل إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله

laa ilaaha illallaah faal illallaah ay faal laa ilaaha illallaah ay faal laa ilaaha illallaah laa faal illallaah yagbu laa ilaaha illallaah ay faal illallah faal bu duural suuru maam Zeynabu Njaay ba mu ba ca réew suuréew bu dul woon ak suuru maam Zeynabu Njaay bu dul woon suuru maam Zeynabu Njaay borom njabi faal ba ba ca réew laay laay فأل إلا الله يقبو لا إله إلا الله يبال لا إله إلا يبال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبال زور مام زينب نجاي faal yi lii ab yawaay faal la ilaaha illallah yëgbu yaxa baayu góor ya mat la ilaaha illallah faal yaxa baayu ya mat buur am la فال إلا الله يقبو لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله فال إلا الله فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله دون رير دون رير كفير كجندي كوي فعل نندي دون رير دون رير ku firi nga gindi koy faal la ilaha illallah faal borom digal faal borom saam borom tuba faal borom deeru faal xar nga ba xoti liir ji ci liir yaa sin buurom la ilaha illallah ارقبوا لا إله إلا الله jërëjëf Baye Mesere macha allah <laughs> nuyoo bi am na solo lool bëgguñu woon sax bëgguñu la woon a dagg waaye comme dañuy dugg ci sikkar si waxtaan wi yaakaar naa ne bu ngeen ko déggee di ngeen xàmmee bu baax a baax baat bi ak air bi tamit mu nekk air boo xam ne air bu kawe la air bu yéeme la tamit Baye Mesere ñu tàmbali waxtaan wi turu yàlla wi kañ kañ la ko bàyyi Baye Mesere dooroon. man nag xam naa mënu mu ko wax sax ci wàllu nasaraan. waaye xam naa boobaak léegi daal juróom fukki at yi mat na teg na sax xam naa ni daal manaa ne nag ëpp may at nag sax moo gën a yomb njëkk ma koo wax fii ci kër Cheikh Ibra Fall ndax ci jëmmi jamono booba maa nga daal di ma dama daan ut poti yi ñetti dërëm yi ut boobu li wañ yu bule yi def ko fiil fa benn keesu almet def ko micro di sikar di yàlla boobu maa nga daal di nekk ku ñu wax sëñ Cheikh Ami Kunta wax dëgg yàlla xam naa daal yàlla moom mooy seet ci lu ko soob rek ci taa ci jaamam yàlla defit nag ma daal di koy jàpp nag rek te koo bàyyi boobaak léegi ci laa nekk nag ba daanaka mën naa ni lépp lu ma am ci xeeti xew loolu ku ma xamit ci baat bii rek nga ma xam ma di ci sant yàlla bu baax di sant suñu waajur yi nga xam ni bi Cheikh Ibra Fall woote woote gi sama waajur dafa bàyyi ko dëkk bu ñu wax ci lay kan fekk ko fii ci njaareem kon loolu sant nañ ko ci yàlla bu baax a baax a baax a ah, di sant sëñ Cheikh Fall bàyyi go waa di sant borom ndigal mii nga xam ni dëgg yàlla teranga yi bari na ci moom lool bàyyi koo ci moom di jëm si ci tuddkati yàlla yi rawatin nun ñii mboolem luy xeeti teranga rek dañu koy defal ci kàddu gi ndax moom kàddu gi da koo ñor lool rawatina nag bunt kër ba ci bunt kër yi Cheikh Rafal yëpp fu ma fi dem wax dëgg yàlla dañ ñuy teral eh, wax dëgg yàlla loolu lu nu yàlla defal waaye nag loolu seen maam rek lañ koy defal ndax nun mënoonoo jóg di am nu ñuy doxee ndax suñu maam loolu la woon waaye wax dëgg yàlla déedéet dafa am benn bis ma dem Kawsara fekk sama mag dafa wàccoon liggéey ma dem di siyaari suñu am di asan la jafeeg waa kër yaa ndekood yi bu ma dikkee nag ñoom ñuy way man may tudd yàlla ba yàgg sëñ bi ni ne ah teg leen dënd yi ci suuf ñu teg dënd yi ci suuf ma noppi mu ne ma ah loola tax a noppi ma ne ko ah man de sëñ bi faal xanaa sama bokk yi rek laay may ñu yëngu mu ne ma déedéet yow nekkal ci li nga war a ne rek da ngaa bokkoon ci ñoom ñu jëlee la ci ñoom indi la ci nun kon yow nekkal ci nun rek loolu sax gën na maa doolee soññi kon noo ngi siyaare sëñ am di asan di siyaare li ma waxoon rek mboolem buntu kër Cheikh Fall ba ci buntu kër bii ma jàkkaarloo di buntu kër sëñ Ablaye Fall Ndar di siyaare mboolem buntu kër Cheikh Fall yëpp su ma limee mën na maa lim ñëpp nag waaye jër ko bu ma nee buntu kër Cheikh Fall bàyyi ma benn buntu kër rek bu askanoo ci Cheikh Fall ak mboolem Cheikh Cheikh Fall yi ba ci ñoom ñi ma dalal di waa buntu kër Baay seex Ndaw kon noo ngi siyaare ñëpp tey balu ak ñëpp tey sàkku seenu ñaan wax dëgg yàlla nun baat bi ñor nañu lool boole wuñu ko dara nag waaye baat bi wax dëgg yàlla yoral nañu suñu lépp ñoo ngi sant yàlla bu baax ëpp may at nag mën naa ni moo gën a yomb ñëkk ma ko fee wax loolu moom dimbalal yàlla waaye du sama ngóor sax. Eh, mu mel ne kon turu yàlla bi da nga digal di ko yëkkati waaye ku xam Serigne Cheikh Fall Baye góor muy keppaar gi nga xamante ni fa nga nekkoon xam ne turu yàlla yi nañ ko loolu. Serigne Cheikh Serigne Serigne Serigne Cheikh Fall Baye góor liggéey ci liggéey bu am solo ñu bëggoon a xam ndax bi nga jógee ngir tudd yàlla dafa amoon koo doon roy ci jamono yooyu wala da amoon sa air bopp wala. mën naa ni nag air bi la wax dëgg bu ma nee jëlee naa ko fenn rek wax dëgg yàlla daal kon da loolu ñuy wax ñàkk wax dëgg moom def naa ko xam naa daal euh, coobare suñu borom la daal ci ni ma koy waxee nii waaye booba fekk na góor gu ñu wax baay Cheikh lay air bi mi ngi tuddoon boo masaa di jóg balaa gaa yee tàmbali sikar nga xam ne yow da ngay benn benn doo ñu tuddee benn benn jógal Cheikh lay lañ la daan wax góoru góoru taalibe suñu ca fàll la woon ma nga nekkoon mbuuru jamono yee rek la wàcc liggéey moom sikar bi dañ laa wax jógal Cheikh lay air bi nag jàppuma ko waaye daana tudd yàlla lu bari moo góor gu ñu wax mataar Ndiaye Matar njaay Baye Matar Ndiaye moom dama koy gis lu bari ba tey moom mi ngi fi Baye Matar Ndiaye yoroon eeru boppam Baye Momadou Dieng yoroon eeru boppam bu ko yëkkati lu mu guddi nga xam ne Baye Dieng a googu Baye Serigne faal nekkoon Sam Fall moom yoroon eeru boppam boo xam ne bii ku ko dégg xam ne kii Baye Serigne Fall la man mit naka noonu waaye daal fenn fu ma ko mën na tuxale daal di ko wax déedéet waaye yàlla dimbale ma musuma roy benn sikkarkat nag moom ndax dama daan dégg Serigne Cheikh Fall daan wax naan xarale daal waru waru fas war mbaam dafa am lu muy lu muy jur ci nit nit ki xarale ba tax na nun ci loolu lañ sukkandiku ba kenn ku ne kaddu gi nga yor daal boole woo ko benn kaddu mosuma roy te nit nag benn sikarkat boo xam ne ngi sikar ma toog di ko roy mustaam man daal maa ngi war baat bi rek waaye yàlla dimbali na bu ma ko bëgg a jëmale rek loola mën naa ko faa jëmale ndax lanoo yàgg nag wax dëgg yàlla loo xam ne lii ëpp sans façade woo xam ne wi nag fu ma ko bëgg nu ma ko bëggee wëlbatee rek ak nu ma ko bëggee waxee rek mën naa ko waxee noonu te boobaag léegi ëpp na juróom fukki at tax ma gën a takk daanaa wax ci jëmmi jamono booba sëñ Cheikh Fall di ma jox kayiti ñaar fukk booba teytu ñaar fukk moo xew booba pes ak amut su ma ko masaa wax guddi màggal nii léeg-léeg ndaw dikk ni ma sëñ bi la ko jox muy kayitu ñaar fukk booba diggante Mbàkke jumaa ji ñaar dërëm la ko oto yi fay buntu ko sëñ Ablaye Fall Ndar ba jumaa ji ñu naan Touba ñaar Touba ñett sëñ Cheikh Fall di ma ko jox nu yëg si ba ci borom ndigal miit bu ñuy tudd yàlla lépp lu mu yor dana ko yëkkati dinu ko jox dinañ jox yéedi di jox xaalis boo xam ne sax dañuy dem ba daw ni man mujj jafe ni sax lii jomb nu te dara waralu ko lu tur yàlla bi ko ñor rek la kon moom it noonu ngay ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool buntu kër yi Cheikh Ibra Fall it ñoom mii nañ ma ci ba kàddu gi rek la buñ ko sëñ Cheikh bu sëñ Mouramin Taat bu sëñ Cheikh Jëmb ak yooyu yëpp bu sëñ Cheikh Jëmb bu ma ñëwee daan ko siyaare di di di di tudd yàlla mu naa sa baay rek sa baay rek sa baay rek sa baay rek daan xaw naa ko mën a war nag te dara warul ko lu kàddu mag njëkk ña ak turu yàlla wi kon ba tey moom it loolu dinaa ko seq ak moom ci buntu kër sëñ Amdi Asan mii waaw noo ngi siyaare ñëpp daal buntu kër yëpp mu mel ne mag ñi fi nekkoon di tudd yàlla ku ci mel ne Baye Jibi Diouf Baye Serigne Fall ñooñ ñoon nga xam ne ñi ngi fi woon euh, yóbbu turu yàlla yu fu kawe ndax ñoom euh, danga ngaa amoon ñoom relation maanaam ab diggante euh, ci ci nekkoon ci seen ginnaaw wala. waaw ah wax dëgg yàlla xam naa leen de moom ndax noo bokkoon fu ndar wàcc Sidi Karim sax xam naa ko Sidi Karim Sidi Karim wër bii nga xam ne moom la ñuy def ci moom la soqi ko ndax booba tànku càmmoñam bii dafa fasu woon ci sidit gi nga xam ne daan samp cati baaraamam yi. nga xam ne boobu bu ñuy tudd yàlla dañuy tax Sidi Karim Diop boobu bu ñuy tudd yàlla ni ñuy def ni ñuy jàngi muwaay bu noonu lañ koy def dañu daan taxaw noonu daaw ñu wër waaye taxawaay bi ci siditu tànk bi xam naa ne xaw a yëngu benn bis rek muy dox ba yàgg rek muy wër gars yi topp ko wër boobu ci loolu la ñu jàpp ni ci loolu la soqi ko kon Sidi Karima xam naa bàyyi Serigne Fall kon xam naa Sidi Karim ndax ñoom ñëpp Sidi Karim moo leen jiitu damaa teel a sob daal teel a bëgg tur yàlla moo tax ñoom ñëpp ma ràññi leen ah booba xam naa Sidi Karim xam naa bàyyi Serigne Fall xam naa bàyyi Cheikh Lay xam naa baay Dieng xam naa Jibi Diouf ba ñi mu àndal ñi mu daan àndal yëpp doon dëbbe waaw ñoom ñëpp xam naa seeni tur kon nag loolu la yàlla dogal ci man loolu nag dara wóorul ko ak bëgg dong la ak pas pièce pas pas parce que loolu nag du sama ngóor du sama njàmbaar yàlla mooy seet rek ci li ko soob mu defal la ko waaye nag day fekk nag nga ànd ak sa bëgg loolu daal jàpp naa ni loolu la waaw ñoo ñu ngay wut lim yëpp xam naa leen xam naa seen i karim xam naa seen i mu mel ne Sikar dafa am ay air. bëri na ci ay air yu bëree bëri. lu ci mel ne air Modou Yaay Jee ak air mooy air bi ñuy wax régalier ndax air boobu mën nga ñu cee dikkal tuuti tuuti rek. régal yi nag jàpp naa ne saxaar la woon koo xam ne ki da daan bàyyi ko soowu di jëm Kaolack man sax xam naa régal yi booba da daan def bu nëgënee dafa daan jaar nii yor ay jën di ko jaay bu ko defee ñu naan jën yaa ngi jën waa booba la ñu saxaar googu la ñu tuddee woon régal yi moo muy régal yi saxaar la woon régal yi lañ ko daan wax régal yi nag dañ ci daan tudd Modou Yaay Jee di ci tudd maam Aada Kase li ci tudd sëñ doot ba ci sëñ Cheikh Fall sëñ Modou Moussa Fall mën naa ko yëkkati xam naa moom masal leen ci tuuti rek laa ilaha illa laay ilaha ilaha ilaha faal illa laay مداوى أمري فاليا مدورم مدياي جي ñibbil baay ngërëm nga duut am nga ko am ni maam Seex mu nga baayu duur yaa ma door mooy boobu mooy rëgëdee mel na ne air boobu air bu air bu yéeme la wax nañ na sax maanaam euh, boo ko mosaan tudd ci njabootu Serafal gi ñoom ñëpp dañuy tàggoog seen sago ah, ndax waaye wax nañ na tamit air bi saxaar gi ni mu daan ralentir noonu ci lañ ci lañ tëggee ci lañ ci lañ tëggee air bi mu mel ne sikaru dafa am sikaru démb ak sikaru tey sikaru sikaru mag ña démb ak sikaru tay bi boo ko doon jàngat lan lan nga ñu ci mën ma mën a dool yow mi nga xam ne fekke woon nga mag ñi ni doon sikare ku ci mel ne Baye Jibi Diouf nga xam ne kuréel googu nga xam ne nga xam ne fi la daan taxaw euh, loolu am na loo ma ci mosaloon ko waaw ñoom di wax dëgg yàlla dañoo nekkoon nit ñoo xam dañoo déggoo woon lool ndax ñoom bu ñu ko mësaa def sëñ bi yebal leen fi barab ci li may fi fekke wala ñu dem fi barab wala ñu war koo def ci bis mel ni màggal yeeg yooyu dañoo dañu daan def maanaam ki war a jiitu xam na palaasam ki ci war a topp xam na palaasam ki ci war a topp xam na palaasam ki nga xam ne mooy awtam nga xam ne moo ni ci biir ku mel ni ba ku mel ni Basra Combaan ci la woon waaye bu Baye Dieng Baye Serigne euh, Jibi Diouf Massa jiital Baye Mat Diop ñoom booleeg dégg nga li ma la wax ñoom ñëpp xam naa seeni i tur damaa xaw a fàtt nekk da ngeen neen ma waaw xam naa seen tur ñooñu dañ ko daan organiser doo ngay topp ci ku Massa ñëw te doon gan suñu la dégloo xam ne yow mii bokkul ak ñoom kii dañu daan a sëq sànni la fële. waaw bokkul ko léegi léegi da ngay ñëw rek dugg koo ci ni nangam mën na mën taxoo ma woon ba damay jébul fekk woo ko tur yàlla ñëpp ko man ñoom dañ ko organisé woon moo tax gis nga seen sikkar ni mu mel dañ ko organisé woon ku war a jiitu kenn ku ne xam nga sa place boo dikkee rek foofu ngay dugg keneen du fa duggaat du gan ak fa noo mën a jógee rek boo dikkee rek dañuy lay sëq sànnil fee bu ñu xasee armée wu moom moom bëggatuñu dara lu tur wi aw yoon rek lañu lañu la ñu bëgg te noonu la ko sëñ Cafal waxee woon noonu la ko doon defee muy ñu doon ñu déggoo woon la ñu daal ñu boole woon seen bopp la ñu joxante woon ay cër la ñu woon loolu gisoon naa ko ci man mii daanaa bokk ci ñi awu wax dëgg yàlla daanaa awu wax dëgg yàlla daanañ defit bu buñ mosaa di dem fenn di yalwaani findi feer wala ñu dem ci barab boo xam ne bi dañ leen faa yebal tam fekk tama fekke ko mu ñuy tànn ñay dem daanaa ca bokk loolu moom sakk naa ko taay kon loolu ba tey sant yàlla la Baye Jibi Baye Jibi Diouf mu mel ne bëri woon na ay air lu ci mel ne air bu ñuy wax dégg dégg daaj air air bu ñuy wax euh, set setal ak air bu ñuy wax euh, nu mu tuddati sax am na air bu ñuy wax set setal am air boo xamante ni bi Serigne Cheikh Fall nelawee la ko sikaroon ak beneen air yoo xamante ni xëy na di nga ko jàpp nga dimbali ma ci tuuti rek ci Baye Djibi Diouf Baye Djibi daal wax dëgg yàlla xanaa léeg-léeg buñ masaa sikar ba ñaan daal mu jékki-jékki dana benn benn maanaam waaye nag moom turu yàlla wi daal moom ci yi ma ci xam ci ni ñu tuddoon mooy ginnaaw bi ma waxee régal yi ba noppi osraay moo amoon waaw moom it loolu lañ ko daan wooyee osraay mooy لا إله إلا الله لا لا لا لا kooku mooy Osra yi waaye ba di ngay dox di dox di dox ba yàgg ci man ni ma ko jàngal fi sama xam-xam toll boroom xam-xam yi dañoo wax ni booy liggéeyal yàlla ca na nga toll waaye bu lay fay ca nam toll suñ Cheikh Fall nag conduite gu mu doon conduite pour yàlla ak li mu ko jaroon ba di ci jëmbat ay ak njabootam moo tax addunay ba yàgg ñu naan jóg leen nu Sam Fall waaye tuddul woon Sam Fall ba fi ne koo waxoon ni ot oto euh, sikar yi nu ñu tudd duñu la ko wax waaye ot léegi dañoo dem ba yàgg ñu naan jóg leen nu Sam loolu nag coono bi ci sëñ Cheikh Fall doon daj ak jëmbat gum ci jëmbatu njabootam man ci sama xam-xam nag waaye waxewu ma benn xam-xam nag man waaye jàpp naa ni loola la ko yàlla faye ba tax ñu naan jóg leen nu Sam waaye tuddul woon Sam Fall ndax sikar bi xew na lu yàgg te goruñu Sam Fall kon nag bi sëñ Cheikh Fall ñëwee coono ak sikar tudd yàlla gi mu daan jox ak ni mu ci daan sonale ak loxol gi nga xam da ko daan conduire bu doon a oto wala saxaar wala avion ma ni da ko daan conduire loolu la ko yàlla fayee addunay dox ba yàgg ñu la jóg leen nu Sam Fall loolu daal maam loolu laa gis man muy otoraay loolu laa xamoon ci jibit waaye xamaluma koon beneen air bu mu daan def xanaa ñu dem baal ñaan mu jékki-jékki rek di def nii may def di benn benn loolu daanaa ko gis waaye beneen air nag bu ma ko xam leen xawuma ko ci moom daal Baye Missiré mu mel ne ndaw ñu bari léegi dañoo dëgmal mal si bala ngaa tudd yàlla nan nga war a mel ak kii tudd yàlla nan la nan la war a mel Baye Missiré boo ko gisee xam ne tudd katu yàlla la macha allah sañse sañse na lool ak léegi tur yàlla ni ñu ko ni ko ni ko yombalee léegi ak bu njëkk yéen ni ngeen ko daan defee. waaw tudd yàlla di man sama baay nga xam ni mooy sama rakk baay bokkoon ak sama baay ndey te bokkuñu baay dafa nekkoon fii ci kër gi bu ma masaa def danaa ma yoode bul tux waaw ah, bul tux ma ne ko ah mu ne ma bul naan sàngara tamit ma ne ko ah, waaw ma ne ko waaw bàyyi tax ñii di tox yow loolu doon tere man nga di ma ko tere mu ne ma waaw ndax booy tudd yàlla sa gémmiñ gi nga xam da nga koy tuddee yàlla malaaka yi dañuy ñëw di ko fontu kon yow bul tux ba yàlla dimbaleel ma ba kenn mësumaa gis may tux du ma naan sàngara tamit te lépp lu ma man ci sellal danaa ko def wax dëgg yàlla ba am na benn bis bi ñu liggéey barabu maam Cheikh Rafal bii sëñ mu dem itam mas na maa woo booba dafay ñëw suba teel ñëw toog mag ñi wër ko ma ni man de bala maa siyaare sëriñ bi danaa wëlbati ko tuuti ba mag ñi ndaw yi dugg ma sa ko ñëw ndeke séen na ma mu yónni benn ndaw ni ko wol ma kee ma ñëw sëñ bi ñëw ngaa mu ni ma waaw ma ne ko waaw mu ne ah, xam nga tax sëñ woolaa ma ne ko déedéet mu ni ma baat bi nga wax dama bëgg nga fonk ko ndax sa ala la daan ni ma lu ñëpp di wut te suñu borom jox la ko na nga koy teeg sa fukki loxo te sàmm ko loolu ñu wax kee suñu borom jox na la ko loolu mas na ma ko wax ci booba la ñuy liggéey barab Cheikh Fall bi kon loolu ba tey sant yàlla la bu baax baax a baax a baax kon loolu ba tey noo ngi koy sant yàlla ah ginnaaw loolu sikkar bi bi ci des mi ngi tudd dàng-dàng waaw dàng-dàng waaw laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ibaad eh, laa ilaaha illallaah kooku la ñuy wax dàng-dàng mooy dang dàng waaw mooy dàng-dàng benn bi Osraay benn bi régal Ah, ah, waaw loolu mooy njaaj astafurlah maa ngi jé mooy njaaj njaaj mooy boobu waa maa ngi jéggalu nag waaw loolu mooy njaaj mooy bu mujj wax laa ilaha illa laa mooy njaaj loolu ba tey waaw mooy mooy mooy mooy njaaj moom bi ci des Australie la benn birigal yi la ci li ma fekk ñu daan ko ko tuddee. ban jamono lu baa monsieur njëkk a sikaree fenn ba yëg ne tey sikar na. mënuma koo jàpp waaye xam naa daal. naka jekk moom saa bu ma koy wax rek gis nga ni ma ñaqe nii ndax baat la boo xam ne bii boo ko waxee tamit dëgg moom booy tudd rek daal di armé wu xam nga barab bii fii ne ci jamono seet waaye boo xoolee ni ma ñaqe nii nga xam ne baat la boo xam ne bii yàlla moom kenn mënu koo nax booy tàmbali rek daal di armé beneen bi ci des muy daaju maam seex beneen bi ci des laa ilaha illa laa yubal لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا kooku mooy daaju maam Cheikh ba tey loolu moom laa fekkee mag ñi daan ko ko wooyee nga xam ne bu ko mësaa def nii waa Darou Mouhty yi def dañu daan kuréel nii di ko def waaw waxtu yi tembe lay doon ci li ma ci daan fekke dañuy kuréel nii wër ko moom lañ daan def. waaw di ko di di di di di di di ko di ko kuréel di ko def dañ ko daan wër comme ni ñuy ni ñuy waa daar muti yi def jàng yooyu noonu lañ ko daan ci kare laa ilaha illa laa ilaha illa la إلا الله يبان لا إله إلا الله من لا لا لا لا من أمد فال مصطفى فال أمد فال يا مدبرم أمد فال مصطفى فال أمد فال يا مدبرم jërëjëf Baye Missiré mu mel ne Sikar si kéemaan na émission bi neex na lool bëgg ñu it mu gaaw a jeex waaye ku nekk xam ne toogaay bi yàgg na te tamit euh, daanaka euh, yàgg na waaye tamit boobu ba léegi tamit liñ fi wax boobu ba léegi yaakaar naa ñiy seetaan jëlee ñu ci njëriñ bu baax a baax a baax euh, yan kàddu ngay dënk ndaw ñi nga xamante ni dañoo sóobu ci turu yàlla yi ñii di roy Baye Missiré ñii di roy keneen. ban yoon nga leen mën a jaarale ngir ñu mën a dab mag ñooñu nga xamante ni ñoom ñoom lañ fekk. xam naa daal li nga xam ni mooy doxal tur yàlla tey doxal yoon wi ci li ma ci xam te man noonu lay doxee mooy wormaalante. wormal ji magi taalib yi nga xam ni dem na sax ba ci jànkat yi maanaam bañ a topp rek mu mu mbàyyi mu jamono ji ni muy doxee maanaam di wormaal mag yi nga xam ni daal wax dëgg yàlla ñoo leen ci jiitu dana toxa dana taxa dabe jiitu maanaam di wormaal mag ñi di leen jox seen wàccuwaay ba noppit boo ko dee waxit ngay sàmm sa sa col colin yi ci li ma ci jàngat ndax man mii di borom digal mii lii nga xam ne moom la ñuy wax deux morceaux sax nanguwul nga di ko nga di ko sol waaw te bëriwul sax lu muy ne waaye deux morceaux maanaam lu demee ni solo pet ak ak mbubb daanaka xam naa moom euh, moom bëggul sax euh, maanaam ab doo nga di ko sol lopitaan bi rawatina tuddkati yàlla xam nga dem taxaw ci digg baas sol loo wala nga sol beneen col boo xam ne méngoowul ak li ngay wax daal man de du ma ko def xam naa nag awma barkeb man koo tere waaye man xam naa sama bopp ni daal fas naa yéene fu ma koy waxee li nga xam ne moo yeeg baat bi danaa ci dox suma kemtulaayil kàttan ci colin wi waaw di warmaal tamit mag yi kilifa yi nga xam ni tamit moom la yàlla doxalee suñu diggante ak ñoom it di leen warmaal koo ci gis rek ndax suñ cafaal dama sama dégg mu ne bu dara desul da ngay jeexaat rek delta taamoo sa tool baay waaw di waaw dañ koy tër bi nag lépp lu mën a doon nag tër bi da cee baax nag tërbiya moom wax dëgg yàlla moom dafa baax ci lépp nag tërbiya moom mooy sàmm lu baree bari ndax xam ngay loo xam ni naa naa ba ma koy waxee ëpp na juróom fukki at ah, wax dëgg yàlla defe naa suñ ko tërbiyoon kon âge bi ma toll nag nii ma koy mën a yëkkati sax kon duma ko mën a noonu waaye nag léegi si moom daanaka da ngay dégg koy wax dara nga daal di génn fii taari tàmbali di solo di di ngénga ka di wane ci benn benn melokaan woo xam ni bokkul ak loolu man xaw ma man de du ko def man daal li ma bëggoon ab taalibe daal taalibe rek la mën a doon te it la war a doon waaw xam ni lii yàlla la ko jox waaye col gi daal moom ci mën na ma ko jàngate man ci sama bopp mooy col gi daal dina sàmm baat bi moom dina ko gunge daal te it dina ko wéttali colin wi waaw loolu daal man man man daal maa ngi doxee noonu man te it bu ma sañoon ku koy doxee di ko doxee noonu te it war warmaal mag ñi ñi nga xam ni ñooy magi taalibe yi jaar fi ah ñooñu nga di leen nga di leen jox seen wàccuwaay loolu moom xam naa ko te it nag mbeelam xeeti poy yi nga xam ni moo mooy kii nga di ko ñëw di ko moyandiku xam naa doomu aadama nag mën naa ni yàlla da koo bind ci mat mata di ci suñ kalaas yi du ñàkk ay matadi di ci dugg léeg-léeg waaye nag léeg ngay dana tax euh, euh, yu daal kii waaw daal di tudd yàlla di fomp sa gémmiñ di di di di di soccu lu baree baree bari di gallax ndi ko di jàpp ah tey wax baat bi baat bu leer a leer a leer ndax maam Cheikh Rafal wax nañu daal di ah baat ah doom ñu ne amu ni baatu laa ilaaha yi foo ma dëgg la dëgg ga dëgg la waaw boo ko defee dëgg dëgg la boo ko fooyee dëgg la baat bi nag layit laaxut layi laax bokku ci laaxi laax bokku ci layit laaxul laax mooy laax mooy laax laaxi laax déedéet layit laaxut laa ilaha illa allah ju leer daal man loolu laa waaye layit laaxul de layi laax ak laaxi laax déedéet moom tax ci waxi wolof nag mooy baat bi layit laaxut waaw wax kàddu gu leer naññi daal man di man di mënuma ko sax naam waaye bu ma yar su ma sañoon su ma ko wax dinaa ko wax waxeen wu leer du ñàkk nag àdduna fëkk la ba léeg-léeg nga xaw a jàdd loolu moom yàllaa bind loolu doomu aadama ci kii waaye man du ma ko fas yéene doxee fas naa yéen bu ma sañoon ñi dinu ñaanal ba fu nu ko mën a waxee donte ay kilifa ku fa mën a nekk da nga toog mën koo teewlu loolu laa ñaan suñu borom di ko ñaan yàlla mi nga xam moo nu bind waaw loolu daal moom ndax nit ki nag day fonk alalam wax tey baat bi comme suñu alal la war nañ cee mën a sàmm ko ba ba mu am lu mu nu yoral ah noonu ciy góorgóorlu leen bari na yu bari yu nu yoral yoo xam ni ndax yi nga gis yëpp waaw li nga gis nii suñ Cheikh Seera ma ko jëlal ma ko xottil ak ñeneen ak loolu yàlla mi ngi may teral mi may xottil yére soxna Awa Gaye suñ Cheikh Ndigal Serigne si Baye Fall yeeg Cheikh ak ñeneen ñeneen di may xottil yére di ma jox ay daal di ma jox xaalis di ma wari loolu ñu koy defal daal te dara waralu ko loolu Cheikh Rafaay waaye du sa dara sama baay du sama darajey maam waaye nag it mën naa ni sama darajey baay nag nag caq ndax bi Cheikh Rafaal wootee sax baay wuy si na nag wuy si na fii fii ci dëkk bii la jóge dëkk ñox ci ndey kan wax na ne bu ma mësaa jot Cheikh Rafal dama ko yuuxu maa ko bëgg a yëg si yeey mu ne ah yéen a ko bëgg a yëg si xajal leen sama lambeen yi ñëw seen lam dugul ba aras kon loolu suñu bàyyi fàggul nañu loolu liñ doon doon ay ñeeyot ñun waa lambeen lañu waaye sama bàyyi damaa joxe damaa tërbiyu joxe sama rakk mu tërbiyu man mi damaa joxoon sëñ Cheikh mi kunta ma tërbiyu ci daara ji daara belal laa nekkoon at ma sëñ Basiru nelawee doon nañ ca muy taw ndox mu bari ci guddi ga booba daara belal laa jóge waaw sama rakk it ñu ko sëñ sooy bu faal te booba ñeeñe bu mag la bu xamoon adduna boo xam ne bi bu woo tur woo ko mës a jox wala sant woo ko mës a jox mën na laa way ba mu tàggal la waaye dafa daal di jaayante fab doomam man mu jox ma sëñ Cheikh mi Kunta fab sama rakk jox ko sëñ sooy bu tuddi na ko tam ñaari doom ndax tuddi na ko doom ji góor tuddi na ko doom ji jigéen ba mu koy tuddee doom ji jigéen boo seetlu tey ci yoon wi ku ko fi njëkk doom ji jigéen Cheikh la Fall du ma ne am na di waaye boo nee benn du ñaar waaw kon loolu yëpp suñu kon nag mën naa ne lii bu ñu ko amee suñu waajur yi tax noo ñaan suñu borom yokki leeram di ñaanal suñu waajur yu baax ya di ñaan borom digal faal ak mboolem njabootu Cheikh Rafal gépp suñu borom yàggal leen fi lool tañ jërëjëf mbokk yi seen émission Zikroullah tey fii la ñëwoon ci pàkk bu barkeel bii di njaareem fii ci euh, euh, jàkkee maam Cheikh Ibrahima ji ñu fekk fii suñuy kilifa fekk fii euh, ñi nga xam ne ñoo yor barab bi muy bàyyi bàyyi bàyyi wàcc ak mboolem Euh, soxna si nga waaw ak maam Lam Fall bi nga xamante ni moom lañ àndal di suñu mag di suñu lépp ak soxna si nga xamante ni moo ne ci ginnaaw euh, nekk ci daayira bu am solo muy daayira soxna maam Seyna mu Njaay soxna Oumy Faye ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di siyaar baax suñ jiili mi nga xamante ni moom lañ fekkoon ci biir kër gi léegi euh, Baye Mesele mu mel ne am na ñoo xamante ni dañuy jàkkaarloog Baye Mesele am ci moom yéene lool nag te xamuñu bunt bu ñuy jaare ban numéro nga mën a joxe ngir ku soxla Baye Missirah Thiam soppe yi ak ñi nga xamante ni dañ koy bëggee fu ñu tollu ak tamit euh, li ngay tàggoo euh, tëjee ko ab air su ko defee ñun ñëpp rek ñu àndandoo ko mën a yëkkati jotaay bi ba beneen yoon incha allah. waaw sama numéro téléphone mu ngi nekk 78 102 91 51 78 102 91 51 Tigo bi mi ngi nekk 76 698 65 89. loolu mooy sama numéro képp ku ma bëgg a jot rek boo ma woo ci ñaari numéro yooyu doo nga ma jot. non waaw 78. 102. 91 51 78 102 91 51 76 698 65 89 loolu mooy sama numéro. kàddu yi tàggoo yi nag mooy ba tey mën na maa dem ci régal yi mën na maa dem ci air bi ngeen aw ko rek. Hmm.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 ndimbal lan lay ñaan yërmande ni leen du lay biir faal ndimbal lan lay faal du lay biir faal ndimbaluy faal yërmande biir ak biti ndimbaluy faal nu dey nuy ñaan dellu ñaan yal na ñaan yépp nango la ilaha eh, eh, illallah gubur la ilaha illallah eh, faal illallah faal ndimbal li ñaan yërmande doole biir ak bit ndimbal lañ lay ñaan te am nga koy faal du lay biir faal ndimbal lañ lay ñaan te am nga koy faal du lay biir faal nu ndey ndimbal lañ yërmande faal du lay biir faal laa ilaaha illallaa faal laa ilaaha illallaa kon dabal duur songal daan mbër ca diiwaan lay bëri Cheikh Ibra Fall dabal duur songal daan dabal duur songal daan mbër ca diiwaan lay bëri kon laa ilaha illa laayi faal laa ilaha illa laaw laa ilaha illa laa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah